itam ñoo ànd suñu xale ànd ba yàlla moom ko mu jóge fi bàyyi fi njabootam gi ñun ñëpp ñu ànd taxaw ci ginnaaw njabootam gi téyel njabootam gi ñu xam leen nag ñuy xale yu yaru di xale yu baax di xale yu joxe cër di xam di xale yu xam fi ñuy teg seen tànk ba ñu déggee ñu dal ci kawam ñun ñëpp boo gisee ñu gën a am li ñu naqari mooy méritowuñu ko ndax yaroowuñu ko meluñu ko may du ma nelaw guddi du ma nelaw bëccëg yar ga si damay def fu ma toll dem naa ba màkkatal mu karama yàlla xam na ko ak jàpp mi ci sama yaram di ko ñaanal yàlla génne ko ci tiis wii ko dal ndax ku nekk xam na du ndëngteem du ñàkk a jubam du ñàkk yaram du ñàkk joxe cëram ñun ñi ko jur daal xam nañ ni liñ ko doon ñaanal tey yàlla may na nu ko dañ ko ko teg ëpp ko doole teg ko ko du lu mu jëf du lu mu liggéey waaye nag ñi nga xamante ni sii ñoo ko ëpp doole teg ko lii yàllaa leen ëpp doole moom mi leen sat ñu ñaan ci kàttanu yàlla ak jëmmi Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ko yàlla atte amiin amiin li mu bëgg yéene ko ci réew mi ak ñi mu àndal yàlla na ko yàlla def di jaay nabil Moustapha sallallahu alayhi wa sallam laa tudd nag làqatuwuma jëwuma kuy làqatu maa ngi jël doo taxaw di wax ci micro sama xol sedd dama naroon na julli ci tàkkusaan mais ma ne du ma dem mukk te gisantewu ma ak sama doom di saakonteeg moom alhamdulilahi rabbil alamin alhamdulilahi rabbil alamin jërëjëf yàlla sunu borom